fa zakkirin nafaati zikre say zakkaru man yaxshe wa yatajannabu alas fallin yasla naaral kubre inna laa yamuutu fiiha wa laa yaxyee qad aflaxa man tazakkee wa zakara sma rabbihi fa sallee bal tuusiruuna alxayaata addunya wal aaxiratu xayrun wa abqaa inna haadaa la fi suxufi luulee suxufi ibraahiima wa muusaa الله أكبر الله أكبر يا الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله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 وقد خابوا من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله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 المتجلي بأسمائه وصفاته في حضرة اللاهوت وبأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت وبالأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج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 كلما تعاقب الليالي والأيام وعاقب الفطر الصيام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة للكافة لنا رحمة لكافة الأنعام ومحللا للحلال ومحرما للحرام وموكلا للإسلام من فرض في نار رمضان الصيام وصلى في لياليه تراويح والقيام وعلى آله الكرام وصحبه الفخام الله أكبر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 وجعله يوم عيد وزينة والسرور وعظم فيه للعامل الأجور فهو يوم التصبيح والتحميد والتهليل والتكبير فهو يوم التسبيح قل سبحان الله وتحميد الحمد لله وتهليل لا إله إلا الله وتكبير الله أكبر فبادروا إلى فعل معموراته وأخرجوا صدقة الفطر وجوبا وهي ساعة عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه وأمن تلزمه مؤنته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلك أو عروس أو دخن أو ذرة توقيد نفس وانشراح قلب كذلك هو الأدب وعنده التكبير من حين خروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام فيقوم للصلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى كذلك أوفر للأجر وقدر الساعة أربعة أمداد من مده عليه الصلاة والسلام إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعطاها الفقير ولا تسقط ببطن زمنها في حق الموسر وتسقط في حق المعسر ويسن إظهار الزينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك زهدا أو تقشفا مع القدرة عليه والمشي إلى المصلى نقده متفق عليه وركوب غير مكروه لأنه زينة وهذا يومها wa kaana alayhi salaatu wasalaam laa yaxruju yawmal fitri xataa yaakula tamaraat wa yaakuluuna witraa wa yanbaghi tarkul musalla makshuufan laa binaa'a fiihi wa in kaana bunyaanun fa yusallaa xaarijahu fi l-baraax fa huwa al-afdalu wal awlaa bal huwa al-muta'ayyinu al-yawm qaala alayhi salaatu wasalaam shahru ramadaana mu'allaqun bayna as-samaa'i wal ard wa laa yurfa'u illaa bi zakaatil fitr wa anhu sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yattali'u bil 'uyuuni ilal ardi fabrusuhu min al-manaafidi تلحقكم الرحمة ولا بأس بخروج النساء بخروج النساء يشهدن الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى العواتق الأبكار والحيض وذوات الخدور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات ويندب إخراج صدقته في مثل هذا اليوم فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراء شاة محرقة فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ذل صدقته حتى يفصل بين الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين واذكروا الله كثيرا شكرا كثيرا وقال جل من قائل فاذكروني أذكركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin kon bëri gannaaw sant yàlla ak yëpp julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen nit ñi bés la boo xam ne bu màgg la ko seen borom lu tax bés bi nga xam ne moom la matalee weeru koor bi gën a màgg ci weer te moom la tàmbalee weeri xaj gannaaw xaj gannaaw xoor aju ci tey la koor xem tey la ak tàmbali yàlla jàng yi ñoo digaloon ci bésab tey moo tax muy bés bu màgg moo tax yàlla defal na leen ko moom bésab xeet yéen ñëpp war ngeen cee feetu bésab taarlu bésab mbég yàlla dana ci yokk yoon lépp lu fi nit lu ñu jaamu yàlla ci bésab tey bi yàlla daf koy fulande ba muy juróom-ñaar fukki ci beneen bés bés la boo xam ne beneen ci bëri subhanallah wax leen subhanallah bésab alhamdulillah akbar gaaw leen jëf ci leen yàlla digal lépp loo dégg yàlla digal na ko soo ko toppee fa saasa yàlla dana daal di bind ci ñi xam ne ñoo ko doon jëfee nañ génne itam mu doon koor ci bésab a boobu bu fekkee ne amuloo potab muut boobu su fekkee lu ñu peese la liibar mooy mooy mu dem kenn nit muy góor muy jigéen muy góor muy jaam muy mag muy ndaw ku nekk war naa génne ñaari kilo yooyu liibar bi si tey waaye nit ku nekk mooy génneel boppam mooy génneel it képp ku mu war a dundal te ne ak gën a ñaare tax wala ak njabar nit ki doom jur wala waajur yi la jur su ñàkkee nga dundal booy bi aroon di nattal mu dem koor sa jabar itam yaa ko war a mu dem koor ak jaam boo amee jaam boo moom yaa ko war a lu tam muram di yow daw na sax ne sa loxo wala jaam sa jabar moom ak muram koor ci li doon dundee ci dëkk bi ci lañ koy génne muy dugub yooyu fi gën a siiw dugub bi ceeb bi yooyu ci la nga ko génne nag ànd ko jàpp ne loo perte loolu mooy teg teg yi ma nga xam ne moo ci war dugg nañu bés su génn ba muy wax allahu akbar allahu akbar su mu agsee ci bi dafay dëkk di ko wax ba bay limaan di ñëw su xam ne limaan xeet mooy mujj ñëw baat bi nag mooy allahu akbar allahu akbar ku dikk ci yoon soo ñibbi bëgg nga delloo weneen yoon ndax yaari yoon yëpp dañ lay seedeel waaye xiiw kañ dem yàlla saati nag mooy yeneen ti muut yeneen ti muut yi soo xam xamut mooy ñaari kilo ak liibar waxtu wi ñu génn nag mooy fajar xale xëy boo jullee suba tey ba noppi rek ba ko ci waxtu woowu moo gën nga ko ba jamono ñëw booy dal ko fay su fekkee mën na la ko am koo xam ne mën la ko am ci mën la taxa nag bu bés bu wéy kooku wàcc na la gis ni tey su naan lañ taarlu ak gëttu xam sa yére yu rafet di lépp julli ji wut sax war na koo def taar taarlu bi gës boo ko moom julli gi moomu ko kenn du ko bàyyi na ngir dëddu àddina lu ñu dëddu dëddu àddina daal ko bàyyi itam ngir ñangasal sa dund dox jëm ci jullikaay xaale wa luy lu yàlla la waaye jëm ndax taarlu la te gis ni tey lépp lu ñu taarlu santaar nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawut génn ci bésab kori lu may mu lekk ay tàndarma gi suba teel pour wane leen tey xóoruma julee kaayam xeet dañ ko war a bay muy lu ñëw ko asamaan tabax bañ ca tegu su fekkee nga mën a tabax sax ci bitti lañ war a ci bitti lañ war a jullee ndax yonent dafa doon wax ne yàlla dana leen yurlu ci bésab korite ak bésab tabaski génn leen léegi génn leen tabax yi yërmande yàlla wàcc ci yéen yàlla amut barab kaw ak suufam ci moom loolu yërmande ji mu joxe rek la waaye jàngal na ko ñi nga xam ne ne dañuy génn tey nekk ci bitti nekkuñ ci dara tabax ngir màggal yàlla la diggante asamaan ak suuf ko yëkkati lu may jumuram koor yonent na ne yàlla dana yóoru nit ñi ci bésab korite ak bésab tabaski ñoo tax gën a yem kër yi daga yërmande jooju nga xam ne mooy lëkkoo yërmande yàlla yi yurru yàlla bi jigéen ñi sant nañ leen ñu génn bési tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doy te daa wax jigéen ñëpp nañ génn jànq ji ak jigéen ji amul mbërëg ba du julli sax war naa génn dem ca jullee taw wàll ba borom jëkkat ak ko amul jëkkat ñëpp sant nañ leen ñu dem ca jullee taw ba ndax ñi nga xam ne moom la fa yàlla sotti ñoom jigéen ñi ñu am ci seen wàll waaye dañuy jaroon ak góor ñi bëgg nañ gëstu tey sadaxe ñu leen si daana wax jigéen ñi sadaxe leen bu kenn xeeb ak xeer xeerab gàtt bu ñu lakk sax boo ko amee sadaxe ko na ngeen wut lot lu dox seen digganteeg safara di leen benn tàndarma di leen benn baat bu neex boo wax sa mbokkam jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne nit ku nekk ci keroog sadaxam lay nekk ñu pëncëm yàlla ba ba ñu àttee diggante mbindee bi gis ngeen jant bi fi mu nekk nii mu ngi ci asamaan ñeneen je suñ digganteeg moom doxam ñaari junni at la te bu bu fenkee dañ koy saral juróomi téeméeri mbubbi koŋ ak ay maraataan yi tànk galaas rek du ko sotti mooy seen liggéey bi ma jënd si ngir bañ tàngaay lor nit ñi te gis ngeen ni ñuy lore bu keroogee koy jëm yàlla nag dañ koy indi ba mu gën a jege bopp yi fukki taxab rek jox ko tàngaay yi fukki at foofu la nit ñi tàngaay yëpp yi naaw seen yére yi di xat yére bu nekk boo déggee rek ñu naan xat dox diggante nag tàngaay yi jant boobu gis ni keroog digle la ngeen di diglante dëgg ragal ngeen yàlla xam nga ne da ngeen dajeeg moom bu bés bu ñu dajeeg yàlla nag jóge la ñuy wax am ne gëm leen yàlla tudd leen yàlla tudd bu bëri yàlla wax na ne tudd leen ma ma tudd leen laa sa dara sa dina moom a gën a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 yàlla ñu yàlla nangul suñu koor. yàlla ñu yàlla nangul suñu koor. yàlla ñu yàlla nangul suñu julli. yàlla ñu yàlla nangul suñu julli yaa bi. yàlla dana bëri jaamam yi muy goreel ci weeru koor. yàlla dana bëri jaamam yi muy goreel ci weeru koor. yàlla ñu boole ci ñoom goreel ci weeru koor. yàlla ñu yàlla boole ci ñoom goreel ci weeru koor yaa bi. yàlla nañu yàlla baal suñu bakkaat yi yàlla nañu baal suñu bakkaat yàlla nañu yàlla jotal suñu mébét yàlla nañu yàlla jotal suñuy mébét yàlla na yàlla méngoo suñu mbit ci zaahir ak ci baatin yàlla na yàlla méngoo ci zaahir ak baatin yaa rabbi yàlla ci jaamam yam tànn yàlla yam tànn ak yëm gërëm yaa yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yaa ci yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yàlla ñu yàlla may jabar yi ñu mën a jëmale ci diina yàlla ñu yàlla may jabar yi mën a jëme ci diina doom yi mën a jëmale ci diina ak doom yi mën a jëme ci diina mbokk yi mën a jëmale ci diina ak mbokk yi mën a jëme ci diina taalibe yi mën a jëmale ci diina ak taalibe yi mën a jëme ci diina ak dëkkandoo yi jëmale ci ak dëkkandoo yi mën a jëme ci diina yàlla ñu yàlla taqaloo mbooloom diine lislaam yàlla ñu yàlla taqaloo mbooloom diine lislaam yaa rabbi bépp pentam yàlla bépp pentam yàlla yàlla ñu yàlla ñu yàlla may jàmm. yàlla may jàmm. yàlla may jàmm. yal na ñu yàlla bay jàmm. yal na ñu yàlla may jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira. yal na ñu yàlla may jàmmi àddina ak jàmmi àllaaxira yaa rabbi. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na fi yàlla hubbi wërsëg. yal na fi yàlla hubbi wërsëg. yal na fi yàlla hubbi xam-xam. yal na fi yàlla hubbi xam-xam. muy xam-xam bu jëriñ. te muy xam-xam buy jëriñ. yal na yàlla jëmale suñu réew kanam. yal na yàlla jëmale suñu réew kanam. ba ba faw. ba faw. mboolem Afrique. mboolem Afrique. rawatina Sénégal. rawatina Sénégal. yàlla ñu yàlla taxawu dëgg-dëgg taxawu. yàlla ñu yàlla taxawu dëgg-dëgg taxawu. yàlla ñu yàlla méngoo dëgg-dëgg méngoo. yàlla ñu yàlla méngoo dëgg-dëgg méngoo. yàlla ñu yàlla may jàmm àddina ak àllaaxira. yàlla ñu yàlla may jàmm àddina ak àllaaxira yaa rabbi. yàlla ñu yàlla may nga demal yàlla. yàlla ñu yàlla may nga demal yàlla. ak nga demal yonentam. ak nga demal yonentam. ak nga demal wajut. ak nga demal wajut. ak nga demal sëriñ. sell yi. yàlla ñu yàlla fangu. yàlla ñu yàlla fangu. ñu ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dëkk ak moom ca gën jee kawe lii. dëkk ak moom ca gën jee kawe lii nii yaa rabbi. inna ala dalika qadirun wa dalika. allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. léegi ñu ngi sant yàlla bu baax. bàyyi naa léegi. nañ sant yàlla bu baax alhamdulilah. weeru mag wi ñu yàlla terale. weeru mag wi ñu yàlla terale. muy weeram. mu di wooram. bésam yëpp di bésu yàlla. bésam yëpp di bésu yàlla. mu sant ñu ne nañ ko woor. mu sant ñu ne nañ ko woor. mu dimbale ñu ngay woor ko. yàlla dimbale ñu bay woor ko. nañ ko sant ci nañ ko sant ci loolu alhamdulilah. dara ngi ñoo xam ne. ñaara ngi nii yoo xam ne. ma gaawam ko yàlla. ak ma gaawam ko yàlla. nit mënu ko nattale mukk. nit mënu ko nattale mukk nam toll. doy na tudde na ko weeram. doy na ca tey. lim ko tuddee weeram. bésam yi mu tuddee ko ay bésam. ay bésam it mu tuddee ko ay bésam. te bés fa yàlla junne at lay ci suñu bés yi. kon bés yi xool yëpp bés bu ne ñu ngi mel ni duñ leen junne at. kon bés yi xool yëpp. bés bu ci nekk mi ngi mel ni dund nañ ci di ko jaamu yàlla. di ko jaamu loolu teewal la boo xam ne yàlla la rek a maye. ñu ngi koy sant ci loolu. ñoo ngi koy sant ci loolu. léegi nag. léegi nag. jaam. jaam. li ko war. li ko war. mu jëm ci boromam. jaam su jëmee ci boromam. jaam bi mu jëmee ci boromam. defalu ko boromam boppam la ko defal. defalu ko borom bi. boppam rek la ko defal. yàlla ko doylu la. yàlla moom ko doylu la. walis jëmmam. walis jëmmam. njëriñ lu ko bàyyi koo ci boppam sax ko. yàlla ko ci jëmmi boppam ci sax soxlawu ko. luy bàyyi koo ci keneen. kon. kon. su jaam jëmee ci moom. bu jaam bi jëmee ci moom. jaam bi ci boppam rek la jëm. jaam bi. ci boppam rek la jëm. jaam bi mooy ki nga xam ne. jaam bi mooy ki nga xam ne. dafa soxla lu nekk. dafa soxla lu nekk. te amul dara nag. te amul dara it. yàlla. yàlla. moo am lu nekk. moo xam lu nekk. te soxlawul dara. te soxlawut moom dara. ki soxla lu nekk amul dara. ki soxla lu nekk te amul dara. su bëggee boppam. su bëggee boppam. day dem ci ki am lu nekk te soxlawul dara. day dem ci ki am lu nekk te soxlawut ca dara. waaye ku dem ci yàlla. ci yàlla. yàlla la ca yóbbu. yàlla moo la ca yóbbu. ku gëm yàlla la gëmloo. képp ku gëm. dëgg dëgg yàlla la gëmloo. ku weddi yàlla la weddi loo. ku weddi yàlla la weddi loo. ku gëm du sa ngóoro. kon nag képp ku gëm. du wut sa ngóoro. maa yàlla la gëm la jot. war ngaa sant yàlla. yàlla nee su ko neexoon ñëpp gëm. yàlla nee bu ko neexoon ñëpp gëm ko. waaye soobut loolu. waaye soobut loolu nag. ñi ko gëm ñoo gën a néew. ñi yàlla jublu ci loolu. lu yàlla jublu ci loolu nag ay yëf la ci jublu. ay yëf day moom la ci jublu. jullit gën a néew. jullit ñoo gën a néew. ndax addina lu ci gën a néew rek loolaa gën a fort. ndax addina lépp lu ci gën a néew. loolaa gën a foor li am daal lu mu foor foor dootu nekk dara li ñëpp am doon daal ñëpp lu loola foor foor dootu doon dara waaye loo xam ne ñun néew ko am waaye loo xam ne nag ñun néew ko am loolu rek mooy li ñuy tiitaroo loolu rek moo di li ñuy tiitaroo ñaare benn ci a ci li tax ñu gëm yàlla gën a néew mu ngoo gannaaw ñaareel woon ñaareel ji yàlla foo ne moom doy na soxlawul dara. yàlla day wane ne moom doy na na soxlawul dara. su fekkoon moo soxla nit ñi gëm. bu fekkoon ne moom moo soxla nit ñi gëm ko. bal mu xiir ñu bari ñu gëm ko. bal mu xiir ñu bari. bal mu xiir ñu bari ñu gëm ko. waaye ñu gën a bari gëmuñ. waaye ñu gën a bari gëmuñ. ñetteel ba. ñetteel bi. soo gisee ñu gëm yàlla gën a néew. soo gisee ñu gëm yàlla gën a néew. noonu yàlla yi gën a bari. noonu yàlla yi gën a bari. ëpp doole. xëpp doole yi. xëpp gànnaay. xëpp gànnaay. xëpp xam-xami àddina. xëpp xam-xami àddina. terewul yàlla mën a wattu jullit ñi ci seen diggante mënuluñ leen dara. terewul yàlla ci boppam wattu jullit ñi ci seen diggante mënuluñ leen dara. mu teral jullit ñi. mu teral jullit ñi. dañ ragaluñ leen. dañ ragaluñ leen mu def leen ñoom ñu am doole bu bari. ñu def mu def nag. ñoom ñi am doole te ñoom ñoo ragal jullit yi. ñoom ñu mujj nag ragal jullit ñi. ñu doon jullit. ñu doxut jullit. foo leen fekk rek ñu ragal ñi. foo leen fekk ñu ngi ragal jullit ñi rek loolaa ne ci ñoom. alquran wax ne. alquran moo wax ne. dana ci seen xol ay ragal. dana sànni ci seen xol ay ragal. yooyu la yàlla wattoo lislaam. ragal yooyu la yàlla wattoo diine ñi. ak jullit ñi. bali noonu bari bari. bali noonu yiy bari bari. ak li leen di bañ yëpp. ak li ñuy bañ jullit ñi lépp. duñ dal ci seen kaw mukk ndax ñoom. duñ dal ci seen kaw mukk ci àddina. ndax ñoom ko. ndax ñoom ñëwuñ ko. léegi. léegi. ku gëm yàlla. ku gëm yàlla. na nga sant yàlla. na nga sant yàlla. yàlla la may nga gëm. yàlla moo la may nga gëm. lu jiitu sax am. lu jiitu sax am. kon nag war nga koo sant. kon war nga koo sant. te gëm yàlla xéwal yëpp moo ci gën a màgg. te gëm yàlla xéwal yëpp moo ci gën a màgg. ndax xéwal yëpp moo leen jur. ndax xéwal yëpp moo leen jur. gëm yàlla. gëm yàlla. moo ji topp yàlla. moo ji topp yàlla. ku topp de ku gëmut du topp. ku gëmut yàlla du mën a topp yàlla. moo jur xam-xam. moo jur xam-xam. moo jur xam yàlla. moo jur xam yàlla. moo jur wilaaya. moo jur wilaaya. moo jur ak yonent. moo jur ak yonent. yooyu yëpp gëm yàlla koy maye. yooyu yëpp gëm yàlla rek a koy maye. ku gëmul yàlla doo ko am. ku gëmul yàlla doo ci xam lenn. xewal yaa dina noonu la day. xewal yaa dina nag noonu la day. xewal yaa laaxira itam. xewal yaa laaxira itam. ku gëm yàlla rek koy dem aljanna. ku gëm yàlla rek koy dem aljanna. ak xéewal yi nekk ci aljanna yëpp. ak gëm yàlla koy maye. yëpp gëm yàlla koy maye. taaru àddina bii nga xam ne moo teew. taaru àddina bii nga xam ne moo teew. yàlla na ne xaraamalu ko. yàlla na ne xaraamalu ko. wërsëgam yu rafet. wërsëgam yu rafet. ak yu neex. ak yu neex. yu mu indi ci àddina. yu mu indi ci àddina. na ne xaraamalu ko. ne xaraamalu ko. ne ne it ñi gëm yàlla la ko may. di leen xëppale nañ leen gi sax di leen xëppale nañ leen gi sax dañu xam ne ñoo tax yàlla indi ko ci nañ xam ne ñoo tax yàlla indi ko fii ci àddina kon yàlla fonk na ko gëm yàlla kon day yàlla fonk na ko gëm yàlla lool gëm yàlla nag gëm yàlla nag bopp ba moo di laa ilaha illallah bopp ba mooy nga wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ku ko wax te muy dëgg ci sa xol ku ko wax te muy dëgg ci sa xol aljanna war nañu yàlla yow aljanna war nañu yàlla képp ku ko bañ a wax képp ku ko bañ a wax safara war nañu yàlla safara war na yow ñeexal la. ku wax baat bi ba noppi. ku wax baat bi ba noppi nag. li nga jëkk a war mooy julli ba bu set juróomi julli. li nga njëkk a war mooy ba bu set nga julli juróomi julli. soo soo saxalee loolu. boo saxalee loolu. at mu nekk nga xool weeru koor. at mu nekk nga xool weeru koor. mooy weer wi ñu génnee. moo di weer wii mu génnee. weeru koor nag. weeru koor nag. yonent bi yàlla dafa wax ne. yàlla dafa wax ne. ku fekkee teru teru weeru. ku fekkee teru teru weeru koor. na nga ko woor. nañ ko. yéen a xool leen. yéen a leen. bu ngeen gisee weer wi. bu ngeen leen bu ngeen ko gisee. xool leen bu ngeen ko gisee. gis ko nag moo di gis ko nag mooy mooy ñaari ñaandu gis ko. mooy ñaari ñaandu gis ko. bu ñu diw diw nañ ko. bu ñu waree diw ak diw gis nañu ko. te ñooñu ñaar wóolu nañ leen. te ñooñu ñaar wóolu nañ leen. kon ñun ñëpp gis nañ ko war war nañ kon ñun ñëpp gis nañ ko. xool dam na yëgaat su ko mbooloo gisee bu ko mbooloo gisee moo xam ne ñu maandu ñu maanduwut moo xam ne bu ñu maandu la ak ñu maanduwut waaye bëri nañ ba mënuñoo daje ci fenn waaye ba ci fenn booy it feeñ koy feeñ na ñun ñëpp war nañoo xool yaar yooyu mooy saxal lu weeru koor yaar yooyu barax lu mat ñetti fukki bés borom la ñett ñett fukki bés. wala ñaari ñu maandu gis ko. wala ñaar ñu maandu gis ko. wala mbooloo gis ko. wala mbooloo gis ko. wala ñaar toxal ko jëlee ci ñaar. wala ñaar toxal ko jëlee ko ci ñaar. wala mbooloo toxal ko jëlee ci mbooloo. wala mbooloo toxal ko jëlee ci mbooloo. gis ak ñaar yi. mi nahaara li koy saxal nag yonent bee ko firi li koy saxal nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy firi mooy ñaar ñu maandu gis ko mooy ñaar ñu maandu gis ko mbaa ñu taxal ko wala ñu taxal ko wala mbooloo gis ko wala mbooloo gis ko wala ñu taxal ko wala ñu taxal ko loolu saxal weeru koor mooy saxal weeru koor loolu mooy saxal weeru koor mooy saxal korite weer wi nag weer wi nag képp ku xoorutoon jaar tamit képp ku xoorut ku wóorugoon ci alxames. ku wóorugoon ci alxames de. xam nga batu benn bés. xam nga batu benn bés yow. war nga koo fay. war nga koo fay. su fekkee ne xamuloo ne weeru feeñ. su fekkee ne xamuloo ne weeru feeñ la. bu fekkee xamoon nga ko nag. bu fekkee ne yow xamoon nga ne weeru feeñ la nag. war nga koo fay te war ngaa kaafara war weeru tëgg la. war nga koo fay. war nga kaafara it. Mm. woo ñaari weer yu tëgg la. te diine lislaam. te diine lislaam. ndigal yàlla ak yonent lañ ciy teg. ndigal yàlla ak yonent lañ ciy teg. du diine ji ñuy soppali. du diine ji ñuy soppali. duñ ci yokk duñ ci wàññi. duñ ci yokk duñ ci wàññi li. te kenn war na topp mbindeef. te kenn war na topp mbindeef. ci mooy ndigalal borom bi. ci mooy ndigalal borom bi. su yàlla diglee. su yàlla diglee. loolu moo jiitu lépp. loolu moo jiitu lépp. su yonent diglee. su yonent diglee. looloo jiitu lépp. looloo jiitu lépp. Sidina Abubakar génne àdduna. ba Sidina Abubakar génne àdduna. ne fal naa Omar ibn Xattaab sama gannaaw. ne fal naa Omar ibn Xattaab sama gannaaw. ñu jaayante moom. toog moom. mu ne da ngeen ma topp. mu ne leen ndax da ngeen ma topp. ñu ne ko waaw. ñu ne ko waaw waaw da ngeen ma topp. feeg yaa ngi topp li yàlla ak yonent digle. feeg yaa ngi topp. lii yàlla ka yonentam digle. mu ne su ma ko moyee nag. mu ne waaw su ma moyee nag li mu digle. ñu ne ko suñu jaasi yi ñu doon xeexee far yaa ngi nii gis ñu ndox mi. ñu ne ko seen jaasi yi ñu doon xeexee xeexee yéefar yi ñu ngi nii gis ñu ci lañ leen jubbantee. boo ko moyee ñu jubbante. boo ko moyee day ñu jubbante la ba nga xaw ci. lu tëral la xam ci suuf. Seydina Omar ba ci sujjóot tëral lex ba ci suuf. mais sant naa yàlla ñoo def ci kanam mbooloo moo xam ne su ma moyee ñu jubbante la. mais sant naa yàlla moom ñi ma def ci mbooloo moo xam ne waxtu woo mooy dañ ma wëcc ba ma jubal ci ba ma jub. léegi. léegi. diine lislaam. loolu ma wax la laa ilaha illallah muhammad rasulullah. loolu ma wax la laa ilaha illallah muhammad rasulullah. julli julli juróom. julli julli juróom. xool weeru koor. xool weeru koor. génn asaka ci ko am alal. génn asaka ci ko am alal. xaj néegam yàlla ba ci ko ci am kattan. xaj xaj néegam yàlla ba ci ko am kattan. yooyu juróom ku ko matal matal nga ponk lislaam. yooyu juróom ku ko matal matal nga ponk lislaam. ku lott. ku lott nag. ci dem Makka. dem Makka. ku lott ci dem Makka. ku lott ci dem Makka. dem Makka warul la. yow dem Makka warul la. ku amul alal jooy génne asaka. ku amul alal jooy génne asaka. génne asaka warul la. yow génne asaka warul la. yaari war te ñëpp la war te. yaari war te ñëpp la war te wàccu kenn. ba nga gënantee ba fa ngay dee. ba nga gënantee ba fa ngay dee. muy góor muy jigéen. muy góor muy jigéen. muy ko mag muy ko ndaw. muy ko mag muy ko ndaw. kooku mooy julli juróom. kooku mooy julli juróom. ak xaar weeru koor. ak xaar weeru koor. yooyu warugar la ñoo xam ne ñoom duñ tegee ko mukk. yooyu warugar la ñoo xam ne duñ tegee ko mukk. julli. julli. war na képp ku gën. war na képp ku gën. kenn sañ nga bañ a ñàkk kenn sañ nga ñàkk a julli. kenn sañ nga a julli. lu mooy jigéen ñaari mbarab. lu mooy jigéen bi xamee mbarab. kooku mooy tefali mbarabam. julli tegee ko na ko. waaye ku dut kooku. waaye nag ku duwut kooku. jullit bu sañ a ñàkk a julli. bu ko doon ñàkk julli. loolu moom day xam ko fenn moom. julli moom du wàcc jaam mukk. julli moom du wàcc jaam mukk. feeg mi ngi dund. feeg mi ngi dund. su tukkee. su na ko wàññi. mën na ko wàññi. bu doon julli ñeent mu julli ñaar. buy julli ñeent rakka ah, mu def ko ñaar. su xoppee. su xoppee it. mën na koo julli nam mënee. mën na koo julli te nam mënee taxaw ko fa. su mën da taxaw mu gappari ko. su mën da taxaw mu gappari su mën da gappari it mu tëdd. tëddee ba tam lay tànk yooyee teg ngay joram. jublu penk su ko mënee. jublu penk yi bu ko mënee. su ko mënee mu tëddee sa càmmoñ jublu penk. su ko mënut mu tëddee sa càmmoñ jublu penk. su ko mënut mu jaaxal. su ko mënut mu jaaxal. waaye booy du tax julli wàcc. waaye yooyu yëpp day tax julli wàcc la. ba ba muy dem bee. ba ba muy demee ba. man de jullee lu mooy. man de jullee lu mooy. kabar naa. kàbbar naa. jàng naa. jàng naa. rukkoo naa. rukkoo naa. sujjóot naa. sujjóot naa. topp ko noonu ba mu jeex. topp noonu julli di ko def noonu ba mu mat. fekk yaram yëpp lott na ba wax loolu ci xelam rek noonu la mën a ji. bu fekkee yaramam lépp dafa lott. ba wax noonu ci xelam rek la man. loolu war na ko. kon taxu julli wàcc ko war na ko. xanaa kon julli du wàcc kenn. kon kay xamee ne ci la julli moom du wàcc kenn kon. diggante teqale. teqale diggante jullit ak ku dul jullit. diggante teqale jullit. ak ku dul jullit. moo di jullit. mooy julli kuy jullit nga. jullit jullit jullit. képp jullit doo jullit. waxuñu ko yonent bi ko yi yàlla waral yëpp. yi yàlla waral yëpp. Jibril la wàcc ci suuf. Jibril moo wàcc ci suuf. waxal ko yonent bi. waxal ko yonent bi. lu may julli. lu may nag julli. julli moom. julli moom. dañoo yóbbu yonent bi. dañoo mu yegg asamaan yi mu yegg asamaan yi juróom-ñaar. nga dem ba ca péew julli. foofa la yàlla julli ak tax ba tey julli. looloo tax ba tey julli. ku gën a julli rek. ku gën a julli. gën yéeg gën a jege sa yéeg gën a jege sa borom. julli bu ko sàggane. kenn sàggane te julli. te julli. dana tere def lu bon. dana tere def lu bon. yàlla tere def lu ñaaw. dana tere def lu ñaaw. ak luñ sib. ak luñ sib. yàlla wax na ne. yàlla wax ne. digalal sa njaboot ñuy julli. digalal sa njaboot ñuy julli. yow saxal ci julli. yéen saxal ci julli. laaju ma ne seen wërsëg nag man naa ko gàddu. laaju ma ne seen wërsëg nag man naa ko gàddu. moo tax kuy jubal julleem bul yërëm njabootam. moo tax képp kuy jubal ak julleem ak njabootam bu leen képp ku sànq julleem itam yërëmal ak njabootam. képp ku sànq julleem it yërëmal njabootam. loolu mooy jaamu yàlla. loolu moo di jaamu yàlla. jaam bi nag su jaamoo boromam ba noppi. jaam bi nag bu jaamoo borom bi ba des na xàq yi ko war diggante ak jaamu yàlla yi. des na xàq yi ko war diggante ak jaamu yàlla yi. mbindeef yëpp njaboot yàlla lañu. mbindeef yëpp njabootam. ku njabootam. jullee xoor. jullee xoor. jaamu yàlla la koo xam ne góor mën na ko jigéen mën na ko. waaye góor liy ngóoram. waaye góor nag lay ngóoram. ginnaaw jullee xoor. gannaaw bi leen xaar. mu sonn ci loo xam ne fay jëriñ ñëpp. mu sonn ci loo xam ne daf koy jëriñ ñëpp. loolu mooy liggéeyub góor. loolu moo di liggéeyub góor. na ngeen góorgóorlu. na ngeen góorgóorlu. jaamu seen borom. jaamu seen borom. te di góorgóorlu. tey góorgóorlu. ci lépp luy jëriñ bindee fi. ci lépp luy jëriñ bindee fi. ngeen rafetal seen jikko. ngeen rafetal seen jikko it. ànd ak ñëpp mbindeef. ànd ak ñëpp mbindeef. mboolem mbindeef yëpp. mboolem mbindeef yëpp. njabootu yàlla lañu. njabootu yàlla lañu. doomu aadama yi ci gën a foor. doomu aadama yi ci foor. waaye du ñoom rek ñooy njaboote. waaye doomu ñoom rek ñooy njaboote yàlla jur gi rek. jur gi ak bàyyi ma yi ak bàyyi ma yi ak yentante yi ak yentante yi ak jaale yëpp ak jaale yëpp lépp njaboot yàlla lépp njaboot yàlla lañ jullit ñi ñoo gën a foor ci nit ñi jullit ñi ñoo gën a foor ci nit ñi waaye du ñoom rek ñoo njaboot yàlla waaye doo na ñoom rek a njaboot yàlla ñu dugg jullit yi njaboot yàlla ku dawut jullit yi njaboot yàlla nga képp kuy doomu aadama ngay doomu aadama rek képp kuy doomu aadama nga di doomu aadama xameel nga ko xorma xameel nga ko xorma war nga ko magal war nga ko magal ni ko boromam magale ni ko boromam magale su fekkee jub na su fekkee jubut. su fekkee jub jubut. yow xisaab la wuñ la yàlla mooy xisaab jaam te yàlla bi mu yónnee Moussa. te yàlla bi mu yónnee ak Haarona. ak Haarona. ci faraw na mu geew ma. ci faraw mu geew mi. daf ne su leen di wax ak na ngeen ko wax wax ju nooy. yaru leen ci kanamam. na ngeen yaru xit ci kanamam. nit mën da bon ba xees firaw na. nit mën da bon. ba mel ni Firawna. waaye nit man dama git ba mel ni Moussa. waaye nit man dama git ba mel ni Moussa. Moussa nag dañ koo sant yaru ci kanam Firawna. Moussa nag dañ koo sant mu yaru ci kanam Firawna mu gën a naru. nag mbindeef mu nekk da ngaa war a yaru ci kanam. da ci kanam. mooy ku ne nga wàcce ko ci wàccuwaay bu ko yàlla wàcce. mooy ku ne. wàccuwaay ba ko yàlla wàcce. nga wàcce ko ci lii. nit ñi ci cosaan nit ñi ci cosaan ñëwoon. waaye ci gannaaw gi. waaye ginnaaw gi. yàlla gënalante na cër yi. yàlla gënalante na cër yi. ci coobareem. ci coobareem. loolu yarul ànd ak yàlla rek def nangu lim def. nga yarul nag ànd ak yàlla ci defam. yaa ngi nit kii di nit te fekk xamu leen. yaa ngi doon nit kii di nit fekk xamu leen. ñaari kayit bii kayit ci xaalis la bii di kayit tabax. ñaari kayit bii di ba xaalis bii di tabax kayit tabax. kayit rek la waaye xamuñu. kayit rek kenn de waaye xam nga ne yënguñu. wurus. wóorul ci suuf si rek lañ ko gasee moom. ci suuf rek lañ ko gasee. moom da xeer yi ci des a bokk. moo xeer yi ci bët ñaar yéen. waaye du def loolu. waaye du seen nangu itam li yàlla def ci mbindeef. nga nangu lépp kon li yàlla def ci mbindeef yi. nday Aysata jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nday Aysata jabar yonent bi sallallahu alayhi ko xam-xam ci saaba yi. kenn ëpp ko xam ci saaba yi. dafa nekkoon ci tukki. ci tukki. wàcc ci ci kër. di lekk yóbbalam. di lekk yóbbalam. yóbbal bi kat du dara mooy tàndarma rek. yóbbal bi kat du dara mooy tàndarma rek. miskin ñëw yelwaan. miskin ñëw yelwaan ko ci. mu fab benn tàndarma jox ko. mu fab benn tàndarma jox ko. benn borom dara jaag si. beneen borom dara jaag si. mu ne ko ñëw ñu bokk. mu ne ko yow jëlee si ñu bokk ko. yaa jabar yonent bi jaaxal nga ñu. ñu ne ko ah yow day jabar yonent bi jaaxal nga ñu ci sa jëf ji. miskin mi nga jox ko benn tàndarma. miskin mi moom. dama tàndarma rek nga ko jox. kii moom dara jaam ji tax nga la ko. kii moom dara jaam ji tax nga ne ko kaay ñu bokk ko. mu ne yonent fa ne. mu ne leen déedéet yonent daf ne. digal nañ ma. digal nañ ma. ma wàcce nit ñi ci seen wàccuwaay. ma wàcce nit ku nekk ci wàccuwaay. miskin moomu. miskin moomu. benn tàndarma bi ma ko jox. benn tàndarma bi ma ko jox. bu ko doon seet ñaata sànq la. bu ko doon seet ñaata sànq la. sànq lañ yu ci. sànqale yu bare ngi ci. ko ko defal noonu la ko noonu la ko fay. te yàlla nee na lu toll ni sànq leen ku ma ko lebal gën a la ko fay. te moom benn tànn bi kontaan loo na ko. te moom benn tànn bi boobu nga ko jox kontaan loo na ko. borom dara ma ko joxoon benn tànn mu mer. borom dara ji jii nag su ma ko joxoon benn tànn mu daal di mer ma jox ko wàccuwaay. loolu moo tax ma jox ko ne yëpp la. loolu bi def yëpp la. dara ji fekk gouvernement. dala gisee mu gën a. dala gisee mu gën ba ci fonctionnaire bi gën a tuuti. ba ci fonctionnaire bi gën a tuuti. ku nekk place boobu yàlla ko jotee. ku nekk place ba nekk yàlla ko teg ko ca na ci yàlla tegee. nañ ko ca ko ca yàlla tegee. yàlla ñu yàlla dimbale. yàlla yàlla dimbale yàlla la ngi leen di ndokkeel yàlla yàlla nangu suñu koor ak suñu julli. di ndokkeel yàlla yàlla yàlla wattu yàlla na yowal ak yàlla bi. wattu suñu réew. wattu suñu réew. saxal fi jàmm. saxal fi jàmm. wattu suñu seefi gouvernement. wattu suñu seefi gouvernement. dimbale gouvernement. dimbale gouvernement bi. ci lépp luy jëriñ. ci lépp luy jëriñ réew mi. luy jëriñ jaamu yàlla yi. ak luy jëriñ jaamu yàlla yi. te na ngeen taxaw di dégg ndigal te di ko topp. te na ngeen taxaw di dégg ndigal. te di ko topp. loolu la yonent bi santaane. loolu la yonent bi santaane sallallahu alayhi wa sallam. xat mu nekk yàlla ngeen nekk ci jàmm. xat mu nekk. yow yow nekk ci jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh. ñooñu am na fi Thierno Diop ambassadeur boobu taw am na ak doyen ak Babacar Ndiaye eh, eh, bu mel ni ma sant Baye tant que jàmm la eh, tant que jàmm la gouvernement bi moo ñu waral ñu ñëw jottali leen ndokkalam jottali jottali santam te gën la gërëm ci taxawaay bi nga taxaw bàyyi te taxawaay taxaw buñ ràññil ci taxawaay yi euh, gouvernement bi xam na ne foo toll yaa ngi digal la njaboot gi di teg xel njaboot gi ci yàlla foo yaa ngi digle bu baax alors gouvernement bi mu ngi gërëm ci li ngeen day bàyyi buroog beneen fànn bitim réew boo toll da nga xam ne am na représentant ci diine Mohamed alors Baye ñu ngi lay gërëm di gërëm bu am lu ab gouvernement bi ñu ngi wax ne Baye taxaw bi nga taxaw kilifa yi fii muy gouverneur muy préfet muy chef d'arrondissement yéen na ko gën na ci kontaan na ci mu lay gën gërëm te di la ñaan nga yokk ñaanal réew mi parce que ñaan kat bàyyi ten xew eebu ko daaw daje nañu fii waxtaan nañu ñaanal réew mi ndax nawet bi baax nawet bi naat ah léegi ñu toll xam nañ ko ñëpp dem nañu war na bàyyi te ñaan ne dëkk euh, président Senghor sa xarit mu ngi leen nuyu suñu gën bari Abdou Diouf mu ngi leen nuyu suñu gën bari maa ngi lay jot a nuyu euh, Mbaye Diouf gouverneur région bi visiter rek mooy maami Dore Mbaye parce que na ma fii boot na ma fii tekk na ma digal na ma maa ngi yokkante bàyyi si njaboot bi xamal ne njaboot bi gouvernement bi suñu jotee lu président de la république jotee lu Abdou Diouf jotee lu ministre de l'intérieur taxal na ma fi maa ngi jëm Thiès gouverneur Thiès loolu de maa ngi yokkante bàyyi ngërëm si njaboot bi xam naa ne am naa bàyyi am naa ko tey te dina ko am lii may ñaan rek mooy ku bàyyi na ñaanal na ñaanal mi rek parce que ñaanam ràññee nañ ko ci ñaan yi loolu lu may wax di turu président Senghor turu Abdou Diouf turu gouvernement bi yëpp maa ngi lay gën a bàyyi di la te di ñaan réew mi jëm kanam Sénégal jëm kanam Afrique jëm kanam te Sénégal réew moo taxawal yokku ndam yi wasalaam يختلف كثر الجهل الحمد لله ak moom it ngi koy gërëm te maa ngi koy yóbbante ngërëm ci gouvernement bi ñu représenté. daal ne gouvernement bi ñu ngi lay gërëm te di xam ne mi ngi dem ci gouvernement nga xam ne moo xam bu baax. na xam nañu baax. waaye dafa fekk rek ñun ñëpp ñoo bokk. waaye dafa fekk ñun ñëpp ñoo bokk. yéen li ngeen nekk ñun ngeen ci nekkal. yéen li ngeen nekk ñun ngeen ci nekkal. ñu ne li ñu nekk yéen lañ ci nekkal. lii it nañ nekk yéen lañ ci nekkal. ñoo bokk réew mi lu baax ñoo ko bokk. lu bokk ñoo bokk réew mi lépp lu baax ñoo ko bokk. njaboot yi ñoo leen njaboote. njaboot yi ñu la leen njaboote. suñu amee lu leen neex. suñu amee lu leen neex. muy suñu bànneex di suñu noflaay ñun ñëpp. muy suñu bànneex di suñu noflaay ñun ñëpp. bu ñu amee coono. bu ñu amee coono it. muy coono waaye coono bi yéen yéen a ciy raw. muy coono suñu coono waaye kat yéen a ngi ciy raw. yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg a noppal ñëpp. yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw bëgg a noppal ñëpp. yal na leen yàlla dimbale. yal na leen yàlla dimbale yaa rabbi. ñu jottali président suñu nuyoo te ne ko ñu ngi koy ñaanal yàlla. mu nga jottali ko président suñu nuyoo te ne ko ñu ngi koy ñaanal yàlla. te fuñ toll duñ ko fàtte. te fuñ toll duñ ko fàtte. ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy gërëm. ni mu màggalee lislaam. ni mu màggalee lislaam. ni mu xormaalee jullit yi. ni mu xormaalee jullit yi. ni mu xormaalee dajee jullit yi. li xormaalee dajee jullit yi. ak seen xeet yi. ak seen xeet yi. loolu yëpp mënoon na ko bañ a def. loolu lépp da mënoon na ko bañ a def. waaye def na ko. waaye def na ko. ngir bëgg ñu kontaan. ngir bëgg ñu kontaan. kontaan na ñu ngi koy gërëm. kontaan na ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy ñaanal. ñu ngi koy ñaanal. di ko xamal ne. di ko xamal ne. nit lu ngeen nekk rek ñu nga ci. nit lépp lu ngeen nekk ñoo nga ca. xam nañ ne lu ñu nekk yéen a ngi ci. xam nañ ne lu ñu nekk yéen a ngi ci. waaye ñii de lu ngeen nekk ñu. waaye ñii de lu ngeen nekk ñu ne ca. loolu ngeen dégg lu mooy loolu rek xam nañ ne lii mooy dëgg. lu ngeen dégg lu mooy loolu lii mu la wax ba mooy dëgg. salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah. gannaaw baykat bàyyi jël waxtaan na ak taalibe yi bi mu waxtaanee ak taalibe yi ba pare préfet bi jël na kàddu gi wax ci turu gouvernement bi ci pour Léopold Sédar Senghor bi mu waxee ba pare bàyyi delloo na ko ngërëm ci turu taalibe ak ci turu mbooloo yu jullit ñi nga xam ne daje nañ fi. waaye jóg mbooloo mi bari nañ lool. taalibe yi bari nañ fi lool nga xam ne moo doon jural loolu waxtaan wi ci julleekaay bi seen xarit seen mbokk di ko wax Cheikh Ibrahima Niass